merci El Hadj jaajëfal euh, internautes yi encore une fois miin ngeen hashtag bi midi plus la Facebook live YouTube live Instagram live actuellement ñi ngi ci YouTube bi mën ngeen ñëw suivre ci suñu plateforme yëpp miin ngeen plateforme yi ndaxte ñu si bari dañuy jot seen ay message seen ay commentaires wax nañ ko émission bi c'est une émission interactive ci la ñuy profité di ci may ay cadeaux ak suñu euh, sponsor officiel Jili CSB ma nga nekk euh, Parcelles Assainies ak foire actuellement nii. techno yi moo koy mayee yii pour internautes yi la mën ngeen a continuer réagir joxe seen ay réponse wala seen xalaat ci émission bi wax nañ ko lu ëpp lu ñu ciy partagé yéen euh, internautes yi en temps réel ngeen di posté seen ay vidéo ñu daal di ciy waxtaan vérifier informer surtout alerte euh, lu am solo la def li ñuy duppee fact checking ak fii jamono toll moo ko war euh, mais bu leen fàtte mukk tamit date bii nga xamante ni soxal na sénégalais yi soxal ndaw ñi surtout ren nga xam ni euh, concert Youssou Ndour dafa am innovation bu bu bu doy waa yàgg naa am mooy euh, billetterie digitale bi nga xamante ni euh, actuellement sa ticket si sa téléphone portable loolu lu mën a nekk la mën nga mooy code QR bi ngeen di gis noonu ci suuf moom ngeen di teg seen téléphone rek daal di appuyer jënd seen ticket ci Youssou ndur bi grandballarena.com mën ngeen dem ci comme ngeen mën a am possibilité euh, jël seen ay ticket am na ticket nag yoo xamante ni c'est physique mais bariwul mais même si c'est physique di gis benn euh, QR code bu ñu def noonu am ngeen possibilité euh, moom bu amee ticket physique am yow nga def ci sa téléphone nii daal di tap daal di activer jënd ci li nga xamante ne mooy opérateur yi wala fi nga xamante ne mooy transfert d'argent yépp muy Wave Orange Money yépp mën nga ci jënd sa ticket vingt cinq euh, décembre bi ak fële ca 1er euh, janvier fële ca Dakar Arena am na benn vidéo boo xam ni ànd nañ ceeg waa euh, ñi nga xamante ni ñooy def ticket yi mooy sa ticket ci sa téléphone lu am solo la ay ndaw fii la ñuy nekk maîtriser loolu digital bi ñoo koy def démonstration baa ngi dama lañ leen ko dégtal voilà donc gars yi boole leen ci message yi ak euh, hashtag sunu net midi plus ku jënd sa ticket fotool sa bopp poste ñu profité may la téléphone portable Tecno waaw fii rek lay xewee d'ailleurs am na benn internet bu ñu bu ñu ne pourquoi pas ñun ñu tànn suñu euh, homme de l'année mën nañ ko duppee noonu kii ne bon seen une occasion comme ni ñu koy defee at mu ne daaw defoon nañ ko yéen am ngeen possibilité élire seen personnalité bi nga xamante ni moo leen marqué ci atum 2021 bi da ngeen ci boole hashtag midi plus suñu net ak TFM euh, dinañ jot message yëpp amuñu page Facebook defuñ nekkuñu ci Facebook mais euh, nekkuñu ci Twitter mais boo posté sa message ci suñu plateforme yi boole ci hashtag bi équipe digitale bi xarañ nañ lool ñi ngi ci ginnaaw ñi ngi gis message yëpp donc mi ngi noonu jaajëf. am na benn image bu benn internaute envoyé effectivement bi may wax ci code QR QR code bi. mi ngi naan ñu de lii de ku ko waxoon ñi nekkoon ñi fi nekkoon y a 30 ans derrière mooy image bi voilà et 30 ans plus tard tout ça tient dans la poche effectivement gis nga ko rajo fii ainsi de suite bari na ay xanaa xaalis laa ci gisul sax te xaalis sax mi ngi ci téléphone yi tout ça léegi mi ngi ci téléphone portable li ñu naan télé ci poche mi ngi nii bu leen neexee ngeen commenté ci ak hashtag bi midi plus sunu net Facebook live. YouTube live Instagram live am ngeen euh, possibilité joxe si comme ni ko benn internet defee léegi nii léegi lañu ñu posté image bi ndax bi ñuy wax ci euh, QR code bi ak euh, soirée Youssou Ndour yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy xaar le 25 décembre ak le 1er janvier fële ci Dakar Arena mi ngi noonu ci la ñu ne lii ku ko xalaatoon effectivement lu doy waar la jamono moo ni toll tamit dans 30 ans après peut-être ñu génn ci téléphone yi ay yeneen xew <laughs> ñu jàll ci ceebu jën bi nga xamante ni euh, dañ ko dugal ci patrimoine immatériel de l'humanité bu UNESCO mu nekk loo xamante ne suñu mbégte la démb ci réseaux sociaux yi ceeb yi bari na gis nañ ci bu weex bu xonk inci de suite am na ku ci ne euh, benn image bu doy waar bu ne ceebu jën au poisson <laughs> ma ne ko loolu du Sénégal <laughs> image bu garaaw la démb lañu ko benn euh, je pense burkinabé ou béninois moo ñu ko posté woon démb. ceeb jën au poisson prix 4500 mi ngi noonu ma ne ko lii du Sénégal <laughs> mais pour vous dire que ni euh, réaction yi bari woon na ci internet yi mooy que ça soit ci kilifa yi ku ci mel ni président euh, Macky Sall rafetlu na li nga xamante ni euh, waa UNESCO tabb nañ ko Sénégal ci ceebu jënam bi nga xamante ni ceebu jën Penda Mbaye la historique bi ñëw nañ ci sànq mais surtout suñu fierté la gën a Euh, yokk visibilité Sénégal mais surtout mbirum tourisme beeg euh, image yu Sénégal dafay gën a ñoŋ ca kanam euh, Youssou Ndour gis nga tweetam bi mu def ci li nga xamante ni mooy gannaaw ceebu jën bi ñu ko yóbbee fële ca. patrimoine euh, immatériel bu UNESCO suñu mbégte la ak mu profité waxaale ci rumba euh, congolaise bi nga xamante ni tamit euh, dañ ko yóbbu ci patrimoine bi lu am solo la waa UNESCO ñoo di tabb lu ni mel waaye internautes yi ku nekk ngi doon joxe seen message wala say message ci réseau sociaux yi démb daal ceebu jën lëmbe na internet bi ci toile bi fépp. Euh, foo dugg muy Facebook muy Twitter muy Instagram ñëpp ceebu jën la fierté la bu ñu nee ceebu jën dañuy xalaat ndar ndar googu nag ci la ñuy euh, dem am na benn vidéo boo xam ne internet yi partagé nañ ko di fa El Hadj Golbert Diagne yàlla na yàlla suuf euh, woyofal ci woyof ko ci kawam yàlla xare ko àjjana am na vidéo bu mu ci defoon gis naa ne internet yëpp a koy partagé. C'est un plat. Maintenant, on dit Penambay. C'est peut-être l'histoire, c'est Penambay. Penambay, c'est une jeune femme issue d'une très grande famille griotte. Parce qu'entre les années 1848 et 1659, les grandes cérémonies, c'était les griottes. Nous avons togg, des potes, nous avons tout. Au fur et à mesure qu'elle accompagnait ses parents, Au fur et à mesure qu'elle accompagnait ses parents, Dieu lui avait donné finalement l'art de pouvoir oh, préparer le Kiboudim de manière indescriptible. Finalement, ku am sa ngénte wala sax dañuy wax sama añ naka Penda Mbaye topp donc ceebu jën Penda Mbaye ñu connecte mais le ceebu jën on dit que maintenant national je le revendique et je le conteste la manière bu ñu koy toggee au Sénégal d'accord parce que moom waaw togg bi de du yëpp yem de am na ci yoo xamante ni doy waar la moom euh, El Hadj Corbel Diagne yàlla na yàlla euh, xaare ko àjjana woyofal suuf ci kawam euh, di ko xalaat bu baax di ko ñaanal encore li mu wax ci historique bi un peu ñëwaat ci Penda Mbaye taxawaayu ceebu jën toujours suñu fierté lay doon mbekke la dém ba tey dañ koy partagé ci réseaux sociaux yi buñ ci jógee ñu jàll ci lu am solo loo xam ne fim mu ne nii tamit dafa xew ci internet bokk na ci tontine 2.0 yi nga xamante ni fi ne nii. xale yi jigéen ñeeg et du jigéen ñi rek góor ak jigéen ñëpp a ngi ciy bokk pourquoi ñu ciy bokk mais parfois mu indi am ay jafe-jafe euh, ci tontine yooyu doo xam nit ki et pourtant yaa ngi bokk ci natt yi bu njëkk ba natt yi ci koñ la woon euh, manière classique bi la woon ko mais léegi nii moom beneen euh, ñi ngi ci beneen lébal ndax jumtukaay yu xarala yi internet ak téléphone portable waxtaan nañoo kii di Madeleine Dramé mu jox ñu ci ay explications parfois jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko ciy rencontré. pour euh, c'est sur une durée bien déterminée am chaque mois wala bu fekkee chaque jour la chaque semaine am kenn ku war a teggi normalement je peux je parle de façon générale. avantage yi je dirais que bëri na parce que épargne la euh, fonds la pour démarrer business. Euh, mën na la débloquer si certaines situations assez souvent da ngay gis problème yooyu ci réseaux sociaux yi ñu ne la kii teggi na xaalisu jàmbur daw na wala kii organiser dajale na xaalis bi yëpp dem yoonam donc euh, ça fait que les gens maintenant sont sont un peu parce que soo suñu gisee publication bi sax ñëw ci yow dañ lay poser tas de questions da ngay gis kenn par exemple gis benn xaritam partager tontini parce que léegi tamit quoi qu'on puisse dire publicité bi ci net bi lay jàllee donc kuy def dara rek ci internet nga koy partager donc nit ñi dañuy xaw a ragal dañ lay poser tas de question et sa se comprend parce que tamit nit ki liggéey xaalisam jox la ko après affaire yi ne fura li ciy gën a xaw a metti mooy li ngay daw ci ginnaaw nit ñi pour ñu jox la seen xaalis parce que un peu dama naa yëfu sénégalais la quoi parfois day day accuser retard ñenn ñi dañuy nekk ci soxla parfois salaire génn benn imprévu ñëw parce que xam nañ Sénégal ni muy demee yaa a tout le temps des imprévus bon beneen problème bu ñu ci mën a amaat mooy ñi nga xam ne dañuy natt ba ci digg bi duñu nekk en mesure de continuer donc dañuy obligé retirer wu suñu retirer woo nga war a wutaat keneen ku leen remplacer affaire yooyu noonu après day day créer benn creux si euh, si teggi normalement wala peut-être durée bi ñu waroon teggi nit ki le temps que ngay chercher ku ko remplacer et tout donc loolu mën na nekk problème peut-être beneen problème boo xam ne ñëpp moom la ñuy xaw a ragal mooy ku teggi ba pare te léegi pour éviter tous ces problèmes aussi. voilà euh, parfois problème du ci ñàkk comme ni ko Madeleine drame di ko jaajëfal. ci internet lay xewee muy ci Facebook yeeg ak ci plateforme yi loolu ñu duppee tontine 2.0 am na ñu koy gën a euh, professionnaliser nag di créer ay plateformes yu gën a structurées yoo xamante ni ñu ngi koy euh, def ci via les nouveaux lu am solo la am na koo xam ne ma nga waaye am na je pense yeneen dëkk yu nga xamante ni ñu ngi ci am taxawaay bu am solo ci tontine 2.0 boobu. bu ci jógee ñu jàll ci Facebook léegi maa ngi ko doon wax toujours am na wala ñuy jot message boo xam ne ñu ngi tuddee Facebook Protect ñu naan la dans 15 jours il faut nga activer Facebook Protect dans 15 jours lan moo waral loolu message yooyu ñenn ñu di ko jot du ñëpp pour le moment am na ñenn ñu koy jot. explication yaa ngi nii ak kii di euh, Daouda Dem mi nga xamante ni euh, mbirum économie numérique lay lijjanti mais surtout digital manager la mu jox ñu ci ay explication ci mbirum euh, Facebook Protect boobu lan moo ko waral ak lan la ci réseau social bi wundu ngir protéger peut-être ñi nga xamante ni ñoo utilisateurs yi. benn sécurité supplémentaire la. bu Facebook di proposer boo xam ne fan yi nit ñi dinañ gis ne dinañ dina am en tout cas ñu ngi ko proposer parce que du nekk ñëpp ñi ngi koy proposer nag euh, mooy ñi nga xam ne peut-être euh, am ñu ngi def ay publication lu bëri wala ay yenn influenceurs yi wala ñi nga xam ne vraiment am nañ benn présence ci réseau social boobu nekk Facebook donc euh, su nekkee proposer wuñ la ko tamit mën nga koo activer donc da ngay dem Euh, dugg sa profil Facebook dem paramètre et confidentialité paramètres après euh, paramètres de sécurité pour mën ko euh, activer Facebook Protect nag double authentification la c'est-à-dire que mooy par exemple dangay ngay wu soo connecté wu Facebook ba pare nga dugal sa mot de ñu ne la par exemple envoyé nañ la benn code ci sa téléphone pour nga jël code boobu dugalaat ko ci plateforme pour plateforme mën a ubbeeku loolu mooy tax nga mën a am accès ci sa profil euh, am na ñoo xam ne. doy na waar ngi noonu lu compliqué la ndaxte mbirum Facebook Protect boobu dafa am euh, léegi ku ñuy expliqué naan ñu ba xam na Facebook Protect dina mën a protéger données yi à 100 pour cent. pourquoi pas di jaajëfal ki nga xamante ni mooy Daouda dem ci explication yi mu ci jox ñu jàll ci question yi mais surtout li nga xam ne dañu soxal ndax ci la ñu profité di maye cadeau yi ak euh, suñu mbokk internet yi ay téléphones yoo xam ne technologie li CSB moo koy maye suñu mbokk euh, internet yi yéen ñi nga xamante ni baaxoo ngeen di suivre euh, li xew ci internet bi ak midi plus bi yëpp ndaxte téléphones yi yu am solo la ay X Pro Tecno yu mag yoo xam ne mën ngay def say live Euh, def ci sa code QR QR code bi dugg ci am mën a am ci billet Youssou Ndour yi ak le vingt le vingt cinq décembre place du souvenir ak le premier janvier am na image cachée bu ñu fi bàyyi wan leen wax leen kan moo nekk ci ginnaaw image bi min ngeen hashtag bi ah ni ngeen def ba commentaire Facebook live YouTube live Instagram live ak lii di euh, YouTube bi surtout ci li nga xamante ni euh, mooy Facebook wala ci YouTube bi donc. commentaire leen ñu ngi xaar seen ay réponses mi ngi noonu jeu bi mi ngi noonu <laughs> bii de xam naa ni sonal na gars ak réalisateur bi jeu bii chaque instant ñu indi ko wanaat leen ko ñu wax ban oto mooy déplacé wu xam naa apu voilà quel véhicule doit bouger en première xool leen A la wala B C D ainsi suite joxe leen ci seen euh, commentaire mën ngeen am possibilité ñu choisir leen ngeen jël ci téléphone portable yi ak Jili CSB ma nga foire ba actuellement ak fële ca Parcelles Assainies lii benn vidéo la léegi lañu ko benn internet euh, postel ñu daal di koy war a partager rek école bu xew loolu mi ngi xewee fële ci région bu Matam euh, diggante Bokki Jawbe département Bokki Jawbe loolu la ñu wax euh, du kii di Mamadou Diakhaté di ci moo partagé vidéo bi ni mel ci Twitter benn internaute daal ñu ci tagee ak sunu net midi plus vidéo baa ngi noonu lu doy waar la da nga naan lii est-ce que Sénégal la effectivement Sénégal gii la xewee région bu Matam la ñu dégtalee vidéo bi. trop difficilement voilà vous voyez voici les élèves de CI et CE1 qui font les cours même sous les arbres à cause euh, du problème de réfection vous voyez vraiment on a vraiment besoin des salles de classe. pour mieux faire les, les jaajëf jot nañ vidéo bi jot nañu euh, partage peut-être autorités yi nañ ci jël ay matuwaay alerte la baaxoo nañu def ay alertes sensibiliser mais surtout informer autorité yi ñu jot ci yenn yi nga xamante ni peut-être yeggewuñu fa wala léegi eh, grace à nos téléphones ak euh, réseaux sociaux yi yu ci bari dara du leen ump en temps réel ngeen am li nga xamante ni mooy eh, xibaar yeeg euh, vidéo yi yeeg yi ñuy partagé. bu ci jógee ñu jeexalee vidéo bi nga xam ne fi mu ne nii son fata bi El nii laay jeexale ak euh, tiktokeuse bi di Fa ay Aydara internet yu bari ñoo ci tagee naan ñu xam ndax gis ngeen lii wala yëg ko effectivement ñu ngi suivre ñëpp. son bii de xam naa bu bees la ak Fata el présidente jaajëf El yaa ngi yaa ngi solaat veer yi bët yi baaxatul damaa katarak wala da nga jëm wala da nga jëm mag waaw damaa jëm mag quand même moo tax kon da yoo xanaa xàmmeewoo xale yi di nekk ci TikTok yi xale yi nii. Ah. kii daal xamee naa ko Aydara Chérif. <laughs> xam nga boo santee Aydara rek dag may marqué. waaw ay dara Chérif mi daal xamee naa ko. dëgg la xamee naa ci aussi ñeneen ñi. ñeneen ñi waaw di leen xàmmee. waaw waaw waaw mais son bi ñuy bi ñuy bi ñuy partagé dafa xew fi mu ne nii de gis naa ni euh, internet yu bari ñoo ñu ciy tagee. Kalla euh, Fata Fata la. Euh, Fata noonu la mu sëmal. Uh-huh. lu mu génn mu xew. <laughs> moom mooy El Presidente. Uh-huh. c'est pas pour ñu tuddee ko El Presidente lu mu génn dafay xew. jaajëf et maintenant euh, ku ne xam nañu léegi TikTok canal de promo la pour. Uh-huh. Euh, beaucoup d'artistes. qui viendra nous voir sax xam naa dans la semaine. inchallah pour ñu waxtaanee ci ay projets album chanson ak ay nouveautés merci Mamadou Ndiaye. merci. ma may la nga barkeelu pour benn question par rapport ak Guédiawaye football club balaa ñuy tàggatoo ak Barési. non waa nga ca kaw. géejawaay ca kaw. waaw ña ca kaw. daccord accord si te Ndeye Marie ci suuf. waaw. jaajëf non si te Ndeye Marie ci kaw. waaw jeex na à lundi incha allah. incha allah.